bu la yàlla mayul jëlal yaa moom jëla ja ma ne ee eh, bu leen naxaate ca te naxe baaxul ndax loo ku ca am ci yow yaakaar nga bañ ko aw ëllëg si bi ndeysaan di nga la yow la ca des ah monsieur le ministre ah ma madame manal ministre tullux mbatal yëbal sëkkudu bi waaw ee tàccu leen ma loolu waay fuutànke yi dañuy def jàkk ci yoonu ci ci ci àll bi jàkk bu rëy bu ñuy def jàkk nag ñoom nag dañoo xaw a néew doole dañuy jël ay ay ay xeer rek rangale ko def ko maanaam design nu benn benn jàkk léegi nag imam bi buy julli il faut mu dem toole ba ñëw ak tànkam yu taq yi bu ñëwee nag day jiite waaw muy kii nag bu romb nag ku mel ni iyaan ca kii nu mu tudd si euh, doomu iyaan ca am mu dindi benn dix mille may ko hmm. ba mu ko mayee dix mille ki kontaan nag ki la sawar mu dem rakas tànkay ba mu set jàppul nit dama rakas tànkay <laughs> mu ne billaay wallaay tey dinaa jiit jiiti boo xam ne billaay dina xam ne bu goonee su paree ma lekk ca <laughs> mu jekki saar nekk ci poosu dënd ba la def dix mille ba dix mille ba rot na mu jekki saar rek commencé bugg julli na xam nga nag halpulaar euh, dañoo bugg affaire diine yooyu bu mu ñëwee rek ni salaamaaleykum aca aca ci leen nottali yaa waaw waaw mu na séeréer yi nekkati ginnaaw joolaa yi féeti nii bu ko defee man ma nekkaat ci digg bi mu xam ne maa gère bi waam mu def mu jëkki saaree ni gars yi ne ay na séeréer bi noonu yéeréer bi naan aɗa far ma ñaktu sammande aɗa far mono e demal ñakka sunde e kay ñuro kablan so nde demno ko ñakka wala kono ɗum ɗum notɗam wonan warki jogoya xam nga nag ma nag jogloy ino réew lool e affaire tak yooyu toxu fi de yàlla lañu waaw nag jema mu ni xaal naa aka samandel dinanir walimane won allah akbar isiden la ilaha illallah isiden mouhammadi rasulillah min way e doyna ah, sat haca noon allahu akbar bisimillahi rahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim arrahmanirrahim continuer boo gérer mu ne ko Pa Malick ah, mu ne ah yaa ka nak pat waa ii yaa rek benn timil naaw benn waa joo xam ne waxambaane boo xam ne bul comprendre booy Ahmed Faye lañ koy wax moo taw ni ciix diin Malick yow mi kii wayak nasi kii ñun kii kii bi boo maag moom ñun nii yéen yi naan ko ci xoolo yàq na jul bi affaire bi ko man xamoon naa ni dina ko yàq ndax xam naa ne pour moom xaalis rek la ko ku nekk dama kontaan ministre monsieur le ministre loolu maa la ko may waaw nag dama bëgg nag gis a nag wala balaa may dem nag wala ni ma ko waxee wala. Eh, waaw te ma wa waa nag wala léegi nag bii dama leen koy leebal rek ma dem sama yoon ndax xam nga lu tax et eh, bëy bi la bëy bi xam nga bëy yi dañoo dañoo saay-saay bëy day wax guddi na nekkate de comme muus yi ñu waxee guddi naan muus yi bu ñuy wax ah bu ñu kontaanee da ngay ñuy wax muus yi naan Sen de mi dünyada, sen de mi dünyada? léegi nag dañu bëy yi nag ñoom nag ñuy toppandoo bëy bi dafa lekk ba suur te da bëgg guddi mu jéggi saa rek xoolal ak ñaari tànk rek mu bëgg teel may ma jaa may ma jaa jigéen bi naan ko bàyyi ma bàyyi ma ñu ndaw yi def yi génn naan surum ne ah, surum la man balaa